Ah, ñu ngi leen ñaan nga nga abonné wala bi te bës cloche bi bu dugalee nga mën di jot notification wa shafiil umma sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahabatihi al wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi al qiyamah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 di sof ak yow rek li ma sosoon ak yow ci yaa ayuha yi nekk ci alquran yépp tuddaloon naa la ci fukk fukk yëpp nekk ci suratu baqara tey maa ngi ci fukkeel bi ak benn fukkeel bi ak benn nag moo tëj suratul baqara di ayatul bayni di yaa ayuha alladina amanu ida tadaayantum bi daynin ila jëlin musamman yàlla de mooy wax ak borom jëy yi nga xam ne nangu nañoo jël seen jëya ne ko ràpp ci kaw suuf di sujjóotal yàlla yàlla mooy wax borom xar yi nga xam ne nangu nañ koo raxas ci njàpp wa yalla wax ak borom der yi nga xamne ne der ya nga kotomu ta dara taxut koo kotomook ñagas lu dul ragal yalla yalla wax ak borom beut yi nga xamne ne koy tour di joy say ronkañ ngi rek bëgg ak sopp ko bu ñu démé ba lëndëm gi lëndëm ñi wétaliko téeréeb yalla bi di julli di ñaan di joy ay wax ak borom nopp yi nga xam ne ngay xerewlu yakamti santane gu baye ko ci yalla bañ jëf ak yalla gu daanu seen kaw bañ bako comme ni xerewloo ab kat bu jël jiwu gerte bi yëpp sotti ko ci suusi si lamu la tawut bu déggé nim koy xerewlo ni sisi ba jiwon tolam ba muy gerteem ga yëpp ci suuf ndeysaanam lu mat weer tawut mu toog a toog ba digg bëccëg mu téye wantaay ga di hupp rekk ne xanaa yéen yëgu leen tàngoor yu may yëg ñu ne ko nim seddee nii ak ngelaw lu neex li di hupp nga naan tàngoor fekk booba moom aw tàngoor war a xëcc niir ba yàlla ji taw rekk lay xelaat moom lay teewlu moom lay xeraw xerawlu mu ne ko ñun de dañoo sedde ay wax ak nag borom loxo yi nga xam ne lu leen yàlla jox ñu joxe ko ngir ak tabe waaye ay wax ak ñi nga xam ne seen làmmeña fu mu nekk ma ngay tooyi ci tudd la ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xoote bi la yépp nag yàlla ku bëgg ñu jariñu comme ni ab taw fu mën a sotti ndox rek dana nekk njëriñ ñaal suusa fekk naa xoote gi mi ngi ci namm rek ñu jëriñu njëriñ ak ka mathali xabatin ambata sabaa sanabila fi kulli sumbulatin miatu xabatin ndax boo seetee xoote bi nag dafa am xoote yu ko jiitu woon te ko jiitu yëpp dañoo bokk kolewu boo ko seetee amoon na xoote bu ko jiitu boo xam ne suñu borom mi ngi ci doon santaane ñi dundalee halal yaa ayyuhaa llaziina aamanu anfiqu min tayyibaati maa razaqnaakum dee leen joxe lu lew moom laa santaane ci ngeen ma mën a jaamoo mu waxaat ne yaay wala si am laa tubtulu sadaqaatikum bil manni wal aza bu leen yàq li ngeen joxe mu waxaat tamit yi muy tere yaay wala si am laa taakulu riba yëpp mi ngi jublu ci xalal waaye yaay wala si am isaat daayantum bi daynin mu jublu ci wàllu jëflante yi fekk yonentu dafa fekkoon war a ñi daan li jëflante lu ñu tuddee salamle salamle mooy jox nit ki xaalis mu war la indil marchandise ci ab diir boo xam ne su ngeen ko bokk faslante te mu nekk lu war a gaaw balaa marché yaa soppeeku booba da nga daan gis koo xam ne dafa joxe téeméeri junne bëgg ko ko indil tàndarma mbaa mu joxe téeméeri junne bëgg ko ko defal ceeb wala mu defal ko ko mboq mbaa mu defal ko ko dugub yooya lañ daan tuddee salamle yooyu moom lañ daan def su ko defee nag dafa ci daan bari ñoo xam ne dañ daan joxe xaalis di xaar ñu indil leen dugub mbaa ñu indil leen ceeb mbaa ñu indil leen tàndarma ña ko joxe woon weddi ko ne joxoñu dara coow nekk ci ñoom waaye booba tamit daanañ jëflanteeg leble leble goo xam ne dafa daan diire ay xat ba mu ñëw Madina dafay fekk meññant yi tabaarakallaahu lu mat koo xamee dafay leb meññantam ñetti xat ci kanam mu nekk nag ne ko boo demee ma jox la alal ji sa tool bi lu meññ ci at mi nga jox ma ko ak bi ci tegu ak ba ci tegu xat xam nga loolu kenn mënu koo xam xam nga loolu baaxut قدم المدينة من النبي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يستق وهم يستلفون وهم مانام موم يونتو بي يستلفون في الثمار سنتين وثلاثة فقال من أسلف في تمر آه، فليسلف في كيل معلوم ووسن معلوم إلى أجل معلوم waaye waaye képp kuy lebleeti mbaa ngay leb ci tàndarma lebal ci natt guñ xam lebal ci màndaxe guñ xam lebal ci diir buñ xam mu daan fekk jaahiliya yi daan jaayee yàpp gëléem gu taxaw nii ñi koy jaayee yàpp gëléem goo xam ne dañ koo ëmb dinaa laa jox sama gëléem gi su ko defee doom ji sa gëléem yi ëmb boobaa nga jox ma ko yonent bi tere ko su ko defee kon nag jëflante yu ñaaw yii la fi fekkoon mu commencé nag di tere par benn ci la natt gi ci ci ci leble ji tamit bu fekkoon dina natt la par benn mu wane na nag aaya ji ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla mu yaay wàllis na amanu waaye waaye iza tum su ngeen nammee jëflante ci bor su ngeen nammee leblante bi day nin ci bor ilaa ajalin mu jëm diir musamman ba de buñ tudd mooy moom mooy diir buñ xam faktubuhu su ngeen nammee jëflante ci bor mu jëm ab diir la diis ci weer wi fukki fan ak juróom ci weer wi weer wu dee faktubuhu bind leen ko ku koy bind mu ne wal yaktub baynakum kaatibun bil adli bind kat bu maandu na ko bind te jël mbind ma teg ko ci maandu wala yaba kaatibun an yaktuba kama allamahullah kay bind tamit bu mu bañ a bind li nga xam ne moom la ko suñ borom bi xamal fal yaktub na bind wal yumli lazi alayhi alxaq ki yore xaq ja moom di di fite mooy naa bind yow ngay fite su boobaa xam nga man su ma yokkee doo nangoo wax nga ne déedéet bul bind loola su ma wàññee soo waxee tamit nga wàññi du ma nangoo bind kon yow mi war a fay. del wax man miñ war a fay may bind man mi la lebal naay bind yow mi ma lepp ngay tudd may may bind buñ paree nga xool lañ bind ma xool ko ñu tolloo net nga signé ma signé nga amé kayit ma yoré kayit motax mu ne wala yab xas minhu shay'an mom moma nak bu mu ca wañi dara fa in kana li ali alil xaq su fekke ki nga xamne mo wara fay xaq ji dafa nek sa fi handi ko yembul aw daifan mbaa muy ko lompañ ah aw laa yastatiu an la wala moom sax mënul fite ndax muuma la wala amee na gàllankooru wax huwa moom fal yumlil waliyahu na ko kilifaam ki huutu ca fite ga te mu teg ko bi xat li ci maandu bu leen ca xem waaye wastashhidu shahidayni mindi rijaalikum hut leen ñaari seede yoo xam ne góor la ñuy doon comme yéen ñëw seede ko moo tax yow nga wax ma bind doyut ba ñuy hut ñaari seede yu seede yooya ñu ne ko bu ñu ñaari góor mu ne fa lam yakuna rajulayni fa rajulun wa imraataani comme ci xalal la daal xul leen génn góor ak ñaari jigéen man tar daw na min shuhada ñoo xam ne gërëm ngeen seen i seede ndax maandu nañ lu tax yow yàlla au lieu que ñaari jigéen mu ne déedéet jigéen fa gaaw a fàtte damaa bëgg an tadila ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al oxra damaa bëgg kenn ka bu fàttee kenn ka fàttali ko góor a ko dàq a takk waaye mu ne walaa yaba suhadaawu seede yi buñ bañ isa do isa ma doxoo buñ leen wooyeef ne ñëw ngeen see jooxe ngeen seede woon buñ bañ buñ leen ne ñëw leen ngeen seede buñ bañ ndax loolu xàq la ci jullit bu ne war ko defal moromam wala tas amoo bu leen yokkat an takkatuba wala si ngeen di bind bor ba saxiiran aw kabiran lu mu tuuti tuuti ak lu mu bari bëri bind leen ilaa jëlee mu jëm ca diir ba lu tax yàlla mu ne zaalikum aqsatu indallaahi moo gën a maandu fa yàlla wa aqwamu lishahaada moo gën a jub gën a mën a dimbale tamit ak seede yow bu fekkee yaa ngi seede luñ bi noonu kay moo gën a yomb wa adnaa allaa tartaabu moo gën a tamit jege ci ngeen ñàkk sikk seede luñ bi noonu kay fa yomb xamul sikk bu sikk naree xam rek mbind ma ñëw waral ñu mu ne lu dul nag ak njaay goo xam ne da ngeen ko wëndaale jaay nga ma jënd nga fay nga jox ma sama marché kooku jarul seede jërul bind ndax nekk gi marchandise bi nekk ci sama loxo ak xaalis bi nekk ci sa poos mooy tekki ne jëflante ji tegu na ci luñ tegu moo tax mu ne illa an takuna tijaratan xaadiratan tuddirunaha baynakum ko lay kon fa laysa alaykum junahun an takt alla taktubuha jërul ko waaye nag wa ashidu ida tabayatum su ngeen di jaaylante man ngeen ko seede bu ngeen ko bintumi seede leen ko diw laa jaay sama kër gi su ko defee tamit maa ngi ko fan fanweeri million ngeen juboo ca yàlla ne wala yu daara kaatibun wala shahidun kay bind bu mu lor bay yokk mbaa muy lor bay wàññi kay seede tamit bu mu lor waay waay wa in tafalu fa innahu fusuqun bikum waay waay yéen ñi seede mbaa ngeen bind su ngeen yokkee mbaa ngeen wàññi loolu gën a topp la gu bon te loolu baaxut wattaqullaa ragal leen yàlla bu ngeen ko ragal rek wa yuallimukumullah fu ngeen ragalee yàlla yàlla jox leen yàlla moomu di joxe xam-xam nag lu lay waral yàlla mi daane ay ma lay daane wallahu bi kulli shay'in alim wallahi kiy joxe xam-xam dëgal leen xam-xam ci ragal yàlla ko kon la yàlla ne bu ngeen nekkee ci tukki nag même bu ngeen ci nekkut xamu leen bindkat man ngeen a wut ak tayle loolu moo doon cosaanal tayle maa ngi lay lebal foo xam ne xamuñ ku ko bind wutal lu tolloog xaymaay li ma lay lebal ci marchandise nga baxiko fa motax man wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban kon nak farihanun maqbudatun kon nak nañu tak tayle tayle goga moy tekine amna luma la jox boo liggéey bokoy xob bi la joxon soko man ta fay ma jaay ko jox lu tolok la ma joxon la kene sama delo lako ko jël lama ma la lebalon la lebaloon la ma bu ko manqué ma top la la ca dess bu fekkee dafa ca xem kep nga dem ma dem من فإن أمين بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمنى أمانته بله لونك بل بل آه تهوتو نيك تايلي غاي واي غوريل فخيل باغا جوخي لاج لا هولو وليتق الله ربه نرجل يالله مي برامم waaye tamit yéen seedekat yi bu leen nëbbu seede wala takkatumu wala takkatumu shahada ak seede kenn du ko nëbbu wa man yaktubha fa innahu aathimun qalbuhu ku ko def rek sa xol bi xam na bakkaar waaye na mucc xol ba jëmu jël lépp la waaye xol dafa gën a moo koy teewlu moo tax mu tudd ko wallahu bima ta'maluna alim kon loolu mooy firi mi ci sëmb mu bëstal kon jëflante yi seede am na ci solo jëflante yi bind ko am na ca solo aaya ji moo gën a gudd ci alquran di traité bor ibnu abbas ne dafa wàccoon ci wàllu salamle moo ko taxoon a wàcc xaasatan ndax ahlul madina dañ daan salamle le daan jëfandikoo nag waaye aaya ji dugalaal na mbooleem xeeti jëflante yi dugal na contrat yi dugal na yéen ñay leb ca banque baag ya ñuy lebal dugal na jàpp surga dugal na maanaam sa emploi bi nga xam ne yaa ngi ko fas yéene embauché ko dugal na journalier dugal na takk soxna dugal na fase dugal na lépp luy xeeti jëflante rek ay doomu aadama di ko séq rek bëgg na seede bëgg na tamit maanaam ñu bind ko ndax doomu aadama yàlla lim tudd nit la tudd te boo jëlee naas mi ngi bàyyi ko ci nasiya ji firi fàtte rek insaan mi ngi bàyyi ko ci nasiya comme ngaa gaaw a fàtte nag da ngaa war a hut ku lay seede di la fàttali da ngaa war a sukkandiku tamit ci mbind ndax lii ba ay ba aaya ji wàccee bi ne aaya ji de ki njëkk a weddi lu maye woon mooy seen maam Adama Adama ba ko yàlla bindee. dafa raay ca gannaawam nga la ca war a génn ci njaboot yëpp génn ca njabootam gi yëpp taxaw ci kanamam mu gis génn góor gu rafet mu laaj ne kii kan la ñu ne ko sa doom la daawuda mu laaj ne dundam moom ci kaw suuf ñaata at la ñu ne ko ku gàtt fan lay doon 60 ans rek lay dund muy juróom-benn fukki at aadama xam yërmande ci sëtam bile ne yow yàlla zid fi umrihi yokkal ko ci fanam wi waay guddalal fanam yokku ko yokkal ko qaala sama borom ne ko la illa an asiduhu min umrika xanaa ma dollil ko loo xam ne ci safan wi laa koy jëlee danaa ko dolli ci sa fan ko sama fan wi ñaata la mu ne ko junnee nga nar a dund mu ne kon jël ci ñeen fukk rek doomu aadama xir junnee xat lem koy am xeb ñeen fukki fan la ci mën a may sëtam bi de mu ne ko dal man na ko may ñen fukki hat bu ci dool dara de ñen fukku rek fasadahu arbaina aman yalla jël ci junne xati adama yile ñen fukki hat may ko bi le di daawuda mom mu xam téeméeri hat mamam adama xam junne xat xamoo lu dul junne junne dërëm junne nga xam ko sa set bi xam lu dul juroom ben fukki dërëm nga ne ñeen fukki dërëm donc la ko ci mëna may adama nak di dundu di dundu ba yàlla dogal junne at yu manqué ñeen fukk ah malakal mawti fëgg buntam ba ne ko yow laa jël si mu ne ko déedéet teel na di dese naa ñeen fukki at di maa ngi koy calculer di mu ne ah borom bi sa waa ji neen dese na ñeen fukki at di mu ne ko déedéet wax ko ne ko ñeen fukki at yooyu moo ko mayoon sa ba fekk dafa ñëw mu ne ko innahu baqiya min umri arbauna aman fa qiila lahu innaka qad wahabtaha li ibnika daawuda ñu ko yaa mayoon sa sa ñeen fukki at yi daawuda de tey nga faraan di bàmmeel de mu weddi ko ne maa faaltu mayuma ko woon dara delloo leen ma sama ñeen fukki yi fa abrasallahu alayhi alkitaaba fekk yàlla bindoon na ko da koo bindulu woon ci benn téere jàngal bi ko tamit seede loo ko malaaka yi malaaka yi taxaw seede ko mu génnee mbind ma aadama amatul pexe keroog la fanaan ci biir bàmmeel moo tax kon aaye ji ne yaay wala si am isa daayantum bi day nin ilaa jëlin musamman li ko ko defut la danoon sama am aadama dal la mooy nga miim weddi waaye bu mbind ma xasee taxaw seede ya taxaw rek lépp lépp yàqu kon li dal aadama bu mu ñu dal te gis nga yàlla jëflante bu rafet da koo bëgg dafa yonentu baa ngi ñuy jàngal société sifaatul mujtama al islami nit ñi war a bëggantee wara a soppantee ba mel ni génn jëmm xamul pet lu cay métti jëmm ja yëpp participer noonu tamit la yàlla bëggee jullit ñi yëglante ko ci seen bopp moo tax mu ne masalul muminina fi tawaadudihim wa taraaxumihim wa taatufihim ka masalil jasadi ida staka minhu udwun tadaaxa daa lahu saairul jasadi bi sëhri wal huma aw kama qaal hadis la bopp muttafaqun alayhi la buxaari yu muslim yëpp ko andi kon nag mu ne jullit ñi dañ war a bëggante war koo yërëmante ñëwante xante ko dafa war a mel ni jënn jëmm rek xam nga ne kenn ku ne ci ñun bu sa tànk bi méttee doo dem jàkka ja loxo ngay dimbalee nopp ya bët ya gisatuñ bu bët di métti tamit tànk ne dematuma noonu la yàlla bëgg tamit jëmm ji lépp ñi maanaam nim participer ci benn cër naka noonu tamit jëmm ji lu cay métti ci sa morom tamit nga yëgee ko noona bu loolu xamul rek bëggante ga wérut bu loolu xamul rek cofeel ga wérut kon nag lislaama ngoog ak njàngaleem mu rafet na kon jullit lii nag boo ko yëgee da nga yëg ne boo xasee nekk jullit rek yow yow milliardaire nga ñàkkoo lu tax ñàkkoo ku xam ku la dimbale ñàkkatoo te mbooleem jullit ñi ñooy ñooy sa mbokk lu dal ci sa kaw ci naqar ñépp la war a sotle bu la ñàkk gane see ñépp sotle la bu la feebar gane see ñépp sotle la loolu nag moo tax fal muslimu laysa faqiran wa hunaka ixwatun lahu ida xtaaja saaduhu kon nag ko xam ko la dimbale ñàkkatoo xam nga ne fekkoon ne société bi dañuy dund hadis bii kon doo gis benn julit buy taxaw alo doo gis benn julit buy sonn waaye balaa sa xol a gën a sedd sa mbokkam julit nekk ci jafe-jafe yaa ngay gëstu sax ndax nekkul ci jafe-jafeem déet ba nga mën koo bégee foofa yow da nga jënd carte membre l'islam rek way adhéré hulo wallahi abonné hulo de nañ ci bahi xel yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëggoon dimbalante abou saïd al khudri yoy wax bam daan wax ne baynama nahnu fi safarin ma annabi if rajulun ala rahilatin lahu ala rahilatin lahu fa jaala fa jaala yusrifu basarahu yaminan wa shimalan فقال رسول kana من كان معه فضل ظهر فليعد به ala man la zahra la yonent bi ne waay waay ku dese gannaaw gu ab jaamab yàlla sa mbokkam julit mën a war waay waay dimbale ko nga waral ko ba hadis bay jeex képp ku ko nga yóbbal ko waay waay loolu na def ku ci xam jafe-jafe problème mu dépense problème mu tool problème mu place foo liggéeyee problème mu feebar jullit ñépp jug sotle la ba nga xam ne dootoo yëgati ak ñàkk ci sa kanam dem na bay ñaaxee ne gëmul yàlla ki lekk ba regg mbokkam jullitam yaa ngi xiif kon loolu baaxut a Hurayra mu ne benn góor ñëw na ci Yonent bi ne ko man dama sonn yonent bi yónnee kenn ci ay soxnam bu ko defé bi fekk waa dafa taxaw ci kanam nako jaa rajulun nabi fa qala inni majhudun inni majhudun moy asabani juhdu fa arsala ila ba'd nisaa yi yonent bi yónnee kenn ci ay soxnam moy soxnaay waaja ba ko defee nag waaja ne bam newen فقال سبحان سنك والذي بعثك بالحق ما عندي الى ماون ندخرك فينا ثم ارسل الى اخرى فقال مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي الى ماون فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدف هذه الليله هذه الليله ولا من يدف هذا الليله فقال رجل من انصار انا يا رسول الله فانطلق به ila rahlihi fa qaala li imraatihi akrami dayfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga waa ji bi mu tawatee ak ñàkk ci yonantu yonantoo yónnee ci ay soxnaay boppam ku mu yónnee rek ko ne ko daraa fi desut xanaa ndox ba soxna yëpp daj yonantu bi jaaxle ne waaye ana kan mooy teral gan gile man yudiif haada al laylata kan moo may teralal kii ci guddi gi yëpp benn góor ci lansaar ne ko man ne ko jugal ñi dem mu jël gan ak yonent bi dem ci soxnaam ne ko teralal ma gan ak sayduna muhammad gi sallallahu alayhi wa su ko defee nag am na riwaaye bu ne dafa wax limraatihi hal indaki shay'un ndax xam na loo xamee soxna si ne ko ah illaa quuta sibyaan yi xanaa dund ak sama njaboot gi rek a fi des ah te ñoom buñ ko joxee mu lekk du ah duñ xam luñ lekk de suko defé timit ah lol la ko soxna sa wax illa quuta sibyani qala fa alayhinna bi shay'in wa idha aradu alcichaa fa nawimihim wa idha daqala dayfuna fa atfi siraja fek mom dafa dafay ko dal kon baxna dama andi lépp rek la fa nek mo andi bu waxtu reer wi joté bu ne ko demal nga nelawloo xale ya bu gan gi dikkee nga fay lamp bi ñi bokk lekk moo mais ni ñi ngi lekk rek gan gi foo na ñi ngi lekk ñi bàyyi ko muy lekk rek billahi sahaba yonentu be baax buñ toogee rek fay lamp bi ñi waxtaan rek fekk gan gaa ngay lekk rek moom tamit foo na ñeneen ñaa ngay lekk rek fekk lekkuñu dara yeneen xale yi ñu jëlee li ñu dem nelaw yi loolu la ñu nekkee loolu la ñu nekkee tabarakallahu kenn xamul kenn xamul la mbaax sahaba yonentu bi rek su ko defee nag fa lama asbaha gada ala nabi fa qaala laqad ajiba allahu min saniicikuma bi dayfikuma allaylata bañ ba bër setee nag rek ndeysaanam aa waaje xëy ànd ak gan nga ñëwal yonent bi yonent bi ne ko hay waay yow waaji le seen jëf ji yàlla xéem na ko lool yaag sa soxna si ni ngeen def jëf ni ngeen jëflantee gan gi yàlla yéem na ko ci rafetaay bi te mooy yéen ngeen fay làmp ba mel ni kuy lekk ak moom bàyyi ko mu lekk ndax li fi des li fi nekk xaju leen ci yéen ñëpp ngeen jël xale ya nelaw loo ko indi loola dëgg-dëgg seen jëf ji moo rafet lii moom la daan saxaaba yonent bi daan dund ak seen mbokk yi lu ca waay ñàkk-ñàkk keroog nga jàpp ne tey laa gën a xoomal ndax ku xam ku xam ñàkkoo dara ki ñàkk dëgg mooy yoroo yoroo ko yor waaye boo yorut ta nga yor ko yor ñàkkatoo dara moo tax ñoom dañ daan njëkkalante di kursu ci tàbbal mbégte ci xolab julit yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama dafay wax ne man adxala ala ahli baytin min almuslimina sururan lam yarda allahu lahu sawaban duna aljanna mu ne képp ku tàbbal mbégte ci xolab julit yàlla du gërëm payoor ci yow lu dul mu dugal la aljana rek noonu tamit mu daan ñi daan defi tàbbal mbégte ci xolu jullit ñi lu ñu xam séddoo ko seen moromi jullit ñi lañ daan defee tamit ku nekk ci njaqare ñi fexe ba yërële la njàqare ya ku ku ne da ngaa sa sutura dafa naw a xaweeku ñu suturaal la moo tax yonent bi daan ñaaxee ne man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya nafasa anhu kurabahu min kurabi yowmil qiyaamati wa man yassara ala mu'sirin fi dunya wal aaxira wallahu fi awni alabdi maa daama alabdu fi awni axiihi buxaari muslim kon abu daawud a tirmisi yu ñoo solo xadis boobu kon nag ci ngay gisee lii lépp ma defaral lay ci ngay yëgee bor lebal le ni mu doole moo tax dërëm bi nga leble ki ko xaajowoo moo ëpp doole dërëm bi nga saraxe moo ëpp doole dërëm bi nga maye ñu ne waaw leble naka la mën a ëppee doole saraxe walla naka la mën a ëppee doole maye ñu ne booy saraxe yaa ngi saraxee rek booy mayee yaa ngi maye mais mën naa xam ka nga may la nga ko may sax amu ci soxla mën naa xam ki nga sarax la nga ko sarax sax amu ci soxla waaye nit moom du leb lu dul soxlaam koo gis muy leb rek lam leb am na ke soxla moo tax yonentu bi ne keroog guddi giñ ma damaa gis ñi bind ci buntu jana dërëm ab sarax fukk la ko yàllay fayee waaye dërëm ab leb yàlla nga koy fayee aa aa juróom-ñetti téeméer ma ne Jibril dërëm ab leb naka la mën a xëpp doole dërëm ab sarax mu ne waaw waaw Jibril ko kaay ma wax la ko mu ne nag kuy laaj yaa ngay laaj rek kuy saraxu mbaa ngay ñaan yaa ngay ñaan rek mën naa xam da nga dajee ñi jox la loo xamul soxla léeg-léeg gars sarax la béy wu làpp wala ñu sarax la ay yëriru ràpp walla ñu sax sarax la ndesit waaye nag kay leb moom la muy leb du leb lu dul xaajoom moo tax loolu ëppale ko moo tax yu noonu tooy wax ne raaytu laylata usriya bii على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانمائة عشر والقرض بثماني بثمانية عشرة فك جرون يتلا فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة لتخ لولو منكو إن السائل يسأل وليس عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة حديث لبوب ابن ماجه أنس moo ko solo kon dërëmab saraxe fukki dërëm dërëmab leble yàlla dana ko fayee fukki dërëm ak juróom-ñett kon moo ëpp doole kon nag dee leen saraxe waaye dee leen leble ku la lebati lebal ko waaye ci condition kañ lay fay ngeen bind ko signé ko xutal ko seede waaye léegi nit ñu bari dañoo ñemee yàlla koo ci lebal mu def ko moomeel ak boppam kon lol lépp nañ koy baye xel kon nak nañ ci baye xel bu baax a baax amna solo ah ku yàlla dogal sa loxo jot sa gannaaw na ngay yaatal ci sa njabot na ngay yaatal ci ñi xaajowoo ñi at tawsiatu ala al-muhtajin siyanatu lin-ni'ma ndax lol da fay ñungal sax xewal gi la yàlla jox xewal bu la ko yàlla joxe nga bëgg mu sax de ci dimbale néew ju doole ya yooyu nun wax de xamul ben jambu yalla jox xewal mu lëwal ko tu ko defee di dimbale xaajooy nit ñi lu dul ba yàlla dana koo yokkal xëlëg muy gën di jëm kanam ku jéggal koo xam ne danga koo lebaloon xamut lu mu la fayee nga jéggal ko te yàlla tax mën a laa yóbbu bu yowmal xiyaamee yàlla jéggal la say say rëcc rëcc kon nag borongook ak doole ji ma xam doole moo tax alquran wax na ko sax yonentu nee na nga xam nag mën a fay téye xaq ja tooñaange la mutlul xani zulmun waaw waaw guddal ak koo xamee ne nii dafa xoomal mën a fay tooñaangee de wa ida atbaa ahadukum ala maliin fal yutbiu mu ne képp koo xamee ne nii dafa nekk koo xamee dafa ñàkk ah, yaa ngi xoomalal koo xamee na nii yaa ngi topp koo xamee na nii ku xoomal la topp ko mu fay la ndax xam na lu mu waaye nag téye googu mu téye xàq waroon laa fay tooñ gu rëy rëy la moom la yonent bi wax de mutlul ganiyi gulmun wa ida atbaa ahadukum ala maliin fal yutbiu fal yutbiu waaye mu ne tamit boo toppee ku ñàkk nag nga jéggal ko mo gën wa in kana zu usratin ta alquran fa nasratun ila masratin wa anta saddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamuna lolu alquran wax kon nak alquran ngok nañ ciy bàyyi xel tabaarakallaahu di jëflante jëflante yu rafet ndax xàq yàlla du ko neenal yowmal qiyaam yonent bi nee na gàtt bi nga xam ne dafa amoon béjjën ba loola jaay ko mu mu mbëkk baat gàtt ba xamul béjjën wallaahi yàlla dana ko xañ béjjënam ya su ko defee tamit ka nga xam ne moo amutoon béjjën mu jox ko béjjën mu fayu comme ni mu ko mbëkkee woon yàlla dool ne def suuf ba xéefér ñe laa yàlla itani kuntu turaaban kon nag nañuy baxi xel tabaarakallaahu ci ci ci lépp loo xam ne ni war na ca loola nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax moo tax kon wala si nafsi bi yadihi law anna rajulan qatala wala qutila fi sabilillahi suma aasa suma qutila fi sabilillahi maa daqala aljannata xatta yaqdiya daynahu yonent bi nee na maa ngi gënci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne nit a ngi ko koo ni ni dafa don xex ci yoonu yalla bañ ray ko dekkilat ko mu xex bañ rayat ko duggu hal jana mu fay borom ya motax kon bor du caaxaan kenn du ko sàgganee kon kenn kon nay baye xel ci bor yi bala nga jegi siral fay say bor de motax ñi bëgg nit ki bu de balañ ko sul ñi set kan mo gaddu bàkkaar ya bu baax bala nit ki nga gaddu nga gaddu bàkkaar ya su ko ñu door ko mën a non la ñu doon bi def boo xamul ko ko gadd mën a jullee leen seen am nga xam ci ki xas dal manam maanaam ko dara ah xamna ñu ko gadd ba pare waye tim bu ko gadd ki mu digg mbolo ma di soob de ni ñe dem nga ne dama doon soob mbolo me tax rek déedéet su baba mom wacc na waye yow ya gadd haq yooyu yeb te lolu bu jara bahi xel la ku musa na ñew iza hadarat janasatun sa'ala an sahibiha hal alayhi daynun am laa fa in lam yakun alayhi daynun salla alayhi wa in kaana alayhi daynun qaala sallu ala saahibikum ni la na yonent bi jaabiray wax gennu góor dafa dee jaabira wax ñu sang ko sang ko defal ko gët andi ko yonent bi pour mu jullee ko ah ne ko dañoo bëgg nga jullee ko yonent bi jéegowu ñaari jéegowu ba pare laaj wala mu jéegowu benn jéegowu taxaw ne alayhi daynun ndax xam na bor ñu ne ko ah kay xamee na ñaari diinaar diinaaraani la yore boo ko doon évaluer ci suñ jamono ji mooy deux cent mille yu manqué tuuti yonent bi wane gannaaw walbatiku su ko defee nag abu qataadata ne ko gàddu naa bor yi ah, ñaari dinaar yi ci la ko nag yonent bi door a nangoo jullee ci la wax ne qad awfa allahu xaqal garimi wa a minha al mayit kon nag matal nga xaqi ki nga xam ne moo xamoon bor moom néew bi dañ na ca dara waratu ko kon nag nañ ci baxi xel ah fa salla ala yonent bi door ko jullee suma baxda zalika ah suma qaala baxda zalika bi yow may ni maa faala dinaaraani ñaari dinaar def qultu innama maata am si qaala fa aada ilayhi min alqaddi fa qaala qad ah, qaddaytu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al a bari dat jildutuhu fekk na gis nga ba ko waa garanta sax taxut mu baxi ko noona yonent bi dem ba ko abu qataada ta garanta yonent bi nekkoon nag matal na xaqi ki xame woon bor ki xame di néew bi dañ na mu ne waaw waaw waaw bi jullee ko gannaaw si gi ñaari fan la ñu ne ko ki ko garanti woon de démb la génn àdduna mu dellu ca moom ñi laaj mu ne fay nañ ko nag fay nañ ko mu ne kon nag wax dëgg yàlla deram ba sedd na kon dana am jàmm kon nañuy bàyyi xel ci bor yi bu baax a baax a baax bu baax a baax a baax saw baana wax ne man faaraqa ruuxahu jasadahu man faaraqa ruhuhu jasadahu ah wa huwa bariun min salaasin daxala al janna al xaluul al xuluul wa daynu wal kibru yonentu bi nee na képp koo xam ne sa ruuxu gi dafa teqalikoog sa jëmm ji man faaraqa ruuxuhu jasadahu dana dañ mu dugg xal te fekk dañ na ci ñett yi ma bëgg wax fekk ñett yi bañ ko wéri fii xamu ci benn xal jaana la jëm ñu ne ko kan ak kan mu ne moy sacc sacc ci mang lañuy tuddé ghulul mom la alquran euh, di wax ne wa man yaxlul bima bima ma xalla alqiyamati mu ne ku dee ñu vérifié la xamee ho bor aljana nga jëm ku dee ñu vérifié sa xol bi rëy nekku ci jana nga jëm way yore bor reuy tagalé halali yi yu dul jeex du seede bari bari ha safara nga jëm loolu bi wax motax tax mu man akasa amwalan nas yuridu ada, adallahu hadu wa man akasa amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu allah kep ku jël alalu nit ñi da nga lek way ya nga xamee yéene fay yalla mo lay dimbalé ba nga fay lu bor ba rëy rëy comme ya nga xamee yéene fay rek da nga fay waye mu ne kep ko xamee ni da nga lepp hal li jamburi fasiyene teud ca ja dana tasaaroo te doo ko jëriñu dara kon tamit jar na baxi xel tabaarakallaahu dafay dugg ci ñett yam daan wax nekk man tasawaja imraatan ala sadaqin wa huwa yanwi an laa yuaddiyahu ilayha fa huwa saanin wa man addaana daynan fa huwa yanwi an laa yuaddiyahu ila saahibihi ahbasahu qaala fa huwa saariqun yonent bi nee na ku takk soxna xam loo joxe ki kan nga am la ca des amoo yéene joxe la ca des di sëy ak soxna sa njaalukat nga képp koo xam ne ngaa leb xamoo yéene fay ki nga leb yonent bi nee na sàcc nga kon yooyu yëpp jar naa daw loolu leb na nga xamee yéene fay nit ñi seeni xalal lu xamaa xam solo la kon nag aayatu day ne ngoog muy bor nekk aaya boo xam ne bu xam solo la bu tënk ay njariñ yu bëree bëree bëree bari la su ko defee nañ ciy baxi xel bu ngeen lebatee fay leen nit ñi seen xaq yi su ko defee mooy tax ngeen mën a sowewu bu ëllëgee fii ci àdduna tamit ëllëg tamit tamit ci àllaaxira daana ki jàngale moom yonentu ba ci jàngale benn góor sakara rajulan min bani israil saala baada bani israil an yuslifuhu alfa dinaarin fa qaala itini bi shuhada mu ne genn góor ci banu israil dafa demoon di leb junney dinaar ci benn mbokkam ci waa banu israil mbokk ma ne ko d'accord andil ay seede yu ko mën a seede rek waaja nag ne ko kafa billaahi shahidan yàlla doy na seede mu ne ko kon andil ma ku la mën a garante boo ma fayut mu ne ko kafa billaahi kafilan yàlla doy na ci garante mu ne ko waaw kon nag wax nga dëgg mu jëla junne dinaar ya jox ko ko mu jëm ab diir waaja dugg ca géej ga dafa tukki ba mu demee xam naa nekkoon mool demoon ca géej ga rek fa qadaa xaajatahu sumal tamasa markaban yarkabuhu ويقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيه ألف دينار ndaw ko maandu léegi nag waaj a dem dugg ca géej ga di liggéey ba heure ba jot mu xam lu mu war a mën a fayee bëgg a ñëw amul gaal gu ko war a mën a indi mu jël benn bant xaar ko jël xaalis ba takk ko ca ba nga xam ne xaalis bi du ko du ko mën a yàq du ko mën a yàq bind ca ne yóbbul leen ma ko mu dem ca boromam mu jël ko sànni ko sànni ko ci géej gi rek génn ca ne ko yow yàlla yàlla nga ma dimbale lii ba mu dem ca kama ko lebaloon ndax daal yow yaa doo yaa ma garante woon yaa ma seede woon léegi nag dama bëgg nga dimbale ma lii dem ci boromam. ne allahuma innaka taalamu anni tasallaftu fulanan alfa dinarin fa saalani kafilan fa qultu kafa billahi kafilan fa radiya bika fa saalani shahidan fa qultu kafa billahi shahidan fa radiya bika yow nag xam nga ne fii ma nekk sonn naa la yow yàlla maa ngi lay seetloo ne waa ji dafa maa loon junne dinaar mu ne naa ko wutal garante mu ne ko yaay sama garante mu ne ma naa ko wutal seede mu ne ko doy nga seede xam nga ne fi ma nekk saya maa dem fay ko te waaye li ma ko mën a fay ngi nii mënu dem te nag diir biñ ko waxoon jot na mu jël mbir ma takk ko ci benn kànq benn bois sànni ko ci géej wa muy dem di daw di dem di dem di dem ba ca dëkkab waaja fa xaraja rajulu allazi kaana aslafahu yanzuru laala markaban xad jaa bi maalihi moom nag léegi mu bam demee ba diir ba jot rek muy dem ca tefes ga pour di xaar waaja ne waaja de xanaa léegi tey mu war a ñëw wala bu ñëwut ka mu yóbbu affaire ba léegi tey mu ñëw rek mu gis benn bant fa isal xasabatu lati fiiha al maalu fa axadaha li ahlihi mu jël ko def ko muy mat bëggoon koo yóbbu pour taxan ko jox ko waa soxnaam yi ñu ñit ñi toggee ca fa lamma nasaraha wajada al maala wa saxiifa summa qadima allati kaana aslafahu wa ataa bi alfi dinaarin wa qaala wallahi ma ziltu jaahidan fi talabi markabin li maanaam léegi nag ba mu defee lu waa ji bi bant bi rek dafa ko bëggoon a jox pour gaa yi taxanee ko mu xool ko rek fekk fa xaalis ba ak leetar ba yàggul dara waaja ko lebaloon timit jam lebaloon ñëwaat indi junney dinaar ne ko man de defe naa pexe mu nekk pour ñëw fay si la waa ji ne ko man jot naa ci sama xaalis bu yàgg jotuma ca mu wax ko fi mu jaar bind ko fa mu ko jaarale ci bant beeg yëpp mu ne ko jot naa ca jot naa ca ngi nii boo xeboo jëlaat sa xaalis bi nga bëgg maa fayaat kon gis nga yàlla rek mooy yàlla lii daal sa bu xéemee xéemee la waaye waa ji ku maandu la ab jàngkat la nag koo xam ne ni yaa ngi leb nit waa ji damay xuti seede mu ne ko yàlla doy na seede damay xut damay xuti ku la garante mu ne ko yàlla doy na garante mu jël ko xutal ko diir diir ba jot fekk la ca bitim réew mënoo ñëw waaye xaalis bi ma nga fa. nga takk ko def ko ci ak genn matt bind ca sànni ko ci géej gi loola dem ku ne mënoon na koo for mënoon naa suux mënoon naa yàqu ba yàlla teg ko ca loxol ka ko le ka la lebaloon xam nga ne loolu yàlla dong dong dong ma ko man kon nag tabaarakallaahu nañuy rafetal jëflante te xam yéene ju rafet ko xam yéene ju rafet yàlla mottali la ko kon dangay ngay li nga bëgg la nga mënut nga baxee ko yàlla yàlla dana ko matal moo tax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama sàgganewut kenn ba bax bàyyi na fi sax ñaan ak ku xamee bor mënoo fay benn góor gu ñu tuddee àll moo ñëw ci moom moo koy nettali àll yi mu ne dafa amoon ku am na mu kaati ban jaahu dafa njotoo ndeysaanam dafa njotoo ak ak jaamam xam naa war a fay amul lum fayee mu ñëw ci yonantu bi ne ko man de dama njotoo xam hiine fay te mënuma fay yonent bi ne kaay ma waxal la ay bat boko saxo he legi tay nga xam halal joo man njoto waaw waaw donte da nga ni hon bor bu toll ni doji dang ko fay mu ko lan la allahumma allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka yonentu bi ne bam ko joxe joxal ni ko ñun ñep de kep ko xamé bor di jang li balaa yàgg sa bor yëpp da nga ko fay allahumma fi nii bi xalaalika an xaraamika wa agni nii bi fadlika am man siwaaka xàll yi mu ne waaj a taqoo lii ba muy yàgg ak mu mën a jot lam xamee loolu nit ki fekk leen toon nag allah uallimaka kalimaatin dégg nga allamahi allama niihi rasulullah sallallahu alayhi wa ko wax alli moo wax waajo ba mu ñëwee ne ko dama bëgg njot ci mu ne kaay ma wax la baat yoo xam ma ne ko lan la walaw kaana alayka misla jabalin ah, da nga ko mën a fay léegi nag mu jox ko ko mu ne ko neel allahuma ikfini bi xalaali xanaa dem wax ne ni fadli xaman si waa ko yonentu nee na koo xamee bor nga jàngali yàlla dana la mayeloo fay àlli jox ko waaja ba mu yàggak ak mu mën a fay njotam ga anas ibnu malik mu ne yonentu wax na li muaz ibnu jabal allah uallimak allah uallimuka duha an tadoo bihi law kaana alayka mithla jabali uhudin daynan la addaahu laahu anka yow has do ñëw ma jox la baat yo xamne boko waxe bo waxee lon bor bu day ni jabalil uhud timit da ko mëna fay waaye xam nga yéen borom bor yi déglu leen ma de commerçant yu bari bor rek dem siin di leb rek yeen nak may déglu yeen bureaucrate yi ñu ci bari bor rek yeen borom entreprise yi ñu ci bari bor rek lañu dundé kon de leen jang allahumma kfini bi halalika an haramika wa ahnini bi fadlika amman siwaaka yéen ko wax waye da len jàng lii tamit yonentoo ko waxon muhaas muy allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir rahman ad dunya wal akhirati wa rahimuhuma آه tu'tihuma من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها من رحمة من سواك mu ne lii ku ko jàng bu sa bor yi meloon ni jabalul uhud timit yàlla dina ko fay kon ñaan la go xam-xam solo lu ci bari alquran la ba ci innaka ala kulli shay'in qadir wa yarhamun dunya wal akhirah rahimuhuma tu'tihuma man tasaw irhamni rahmatan tughnini biha min rahmatin min siwaka mom du alquran hadis la yonentoo ko wax kon li ko ko jang bu sa bor yi bari bari bari bari bari insha allah rabbi dang ko fay bokoy jang na man ko jang limbu tol rek ñetti yon suba ñetti yon ngon mbaa juróom-ñaari yoon suba mbaa juróom-ñaari yoon ngoon bu fekkee bor ba dafa tar ba jéggi dayo nga di ko jàng fukki yoon ak benn suba fukki yoon ak ngoon loolu lépp lu mu rëy rëy nga xam ne fay saxoo lii di ko jàng da nga fay waaye nag boo koy jàng guddeeg ba cëg taxamoo xéenay fay doo fay de da danoon abu umamata ba mu xamee bor rek daw dem ca jàkka ja yonentu bi ne ko gis naa la ci jàkka ji waxtu woo xam ne duhul waxtu wi ma la gis di mu ne ko ay bor dañoo ma dàqe mu jàngal ko ay baat ne ko dee ko jàng da nga dem nag tey góorgóor luy xuti boo ko booyee rek bu yàggee rek nga mën a fay waaye nag yorey bor na boutique yi jàkka ja du ko doxal nag kon nag zakatu dayni am na wa mimma yajibu maarifatuhu wa nataxaddasu an dayni huwa maarifatu al ala dayni zakatun in kaana ali zakat hal tajibu ala daini aw ala al madin waaye mooy kon war nañoo xam ne nag bor kat booba léegi maa la koy jàngal ci yàlla si amoon ila daayantum bi day nin ilaa jëli musaman bor moomu ndax asaka war na ca ak bu ca waree ki leb ak kiñ kiñ labal ku ca war a joxe asaka ja wala ndax amma annaha tajibu ala lam yaqul bihi ahadun ñu wax ne ñoom ñaar ñëpp war a joxe asaka ja déedéet loolu njuumte la bor daal li ñu jëlee ci saydatuna Aïcha mu jëlee ko ca yonantu ba dafa ne laysa fii dayni sakaatun ay annaha laa tajibu ala daini wala al madini mu ne asaka mu ne bor asaka waru ca ki ko leble waru koo génnee kiñ ko lebal waru koo koo génnee ndax kiñ ko lebal moomu ko ka ko leble jotagu ca kon du ko génne wa ayada haza ibnu hasmin ibnu hasmin tamit loolu la dëgëral wa wajjaha qawlahum anna malaka ana ana milka anal milka su ko defee kullun minhuma xayru taamin ñu ne moomeel ga matagul ci kenn ku ne kee moo ko moomoon joxe na ko kii moomagut ko waaye jumhurul fuqaha daal ci diiri saxaaba ya tabaarakallaa ak ñi leen féete woon gannaaw dañuy wax ne daw bor ñaari xeet la mooy bor buñ yaakaar ak joxeem bor bu yaakaar ak joxe nak moy ki ko lebal borom xala borom ala la de mën naa fay de ta boole ko ku rafet jikko la bobu bor dal le ëpp ci fuqaaw yi dañu wax da ko wara a asaka ndax bor bo xamne ne ko lebal borom alal la man na fay ta boole ko timit rafet na jikko du lek hal li jàmbur koko kay boy defal inventaire na ko calculer halé ndax mi ngi mel ni mi ngi ci sa am na ño xamne luñ la bo xé bom ngi mel mi ngi nekk ci sa loolu lañ gëm dañu wax ne ah daynun marjuwul ada bi an kaana ala musirin muqirin bi dayni xoomal nga te saxal nga bor ba fa haada a yuajilu sakaatahu dangay ngay gaawee asakaam maa maalihi alxaadir fi kulli hawlin saa yooy génnee asaka bor boobu da nga koy génnee xale asaka ndax kat abu ubaydata loolu la solo jëlee ko ca Omar jëlee ko ca Sidna Omar jëlee ko ca Sidna Ousmane jëlee ko ca Ibnu Omar jëlee ko ca Jaabir Ibnu Abdallah ci ñi ñëpp ay saxaaba lañ loolu lañ gëm taabiin yi tamit dëppoo nañ ca ak ñoom jaabir ibnu saydin taabiin loolu la wax mujahid taabiin loolu la wax ibrahima loolu la wax maymuna loolu la wax maymun ibnu mahran loolu la wax ñaareelu xeet wa nag mooy bor boo xam ne yaakaaroo jot ca ndax ki nga ko lebal ku ñàkk la en même temps bu xamee tamit dafa weddi bor ba ne xamee lu ma dara wala même bu ko saxalee ti manta fay kooku nag moom Euh, ko boobu bor daal wax dëgg yàlla doo ko génneegul asaka ci jamono ji ngay génnee doo ko génneegul asaka de ah bu njëkk ba da koy kon al awalu an yuzakiyahu ida qabadahu lima mada min as-sinin ñii ne bor boobu nga xam ne yaakaaroo jot ca lu fa yàgg yàgg yàgg xam na fa ay xat yow daal ñàkk cee jot nga yaakaaroon far nga jot ca kon ku mel ni ibnu aliyu ak Ibnu Abbas dafay wax ne xat yam yam nekk ca loxol waajo yëpp ngay génne asaka ñenn ngeen ne déeréet annahu yusakkihi ida qabalu li santin waahida soo demee ba jot lu mu fa yàgg-yàgg doonte fukki xat la menn yoon rek nga cay mooy masabu Xasan mooy masabu Omar ibnu Abdul Aziz loolu mooy masabu imaamu Malik loolu moo nekk ci mu dawana moo nekk ci mu watta kon wax moo gën a wér ñetteelu xaaj ba nag dañoo wax ne sa ñoom laa sakaata alayhi li shay'in doo ca génne dara bor ba nga yaakaaru faye kok bor bi nga yaakaaru to ak yépp doo ca du génnee dara bis boo ca jotee nga koy door a moom da nga koy jubale ren ba déwén boo ci demee ba déwén ba déwén nag nga nga koy door di génne asaka kon ñetti wax yi yépp boo ci sukkandiku waaye bi ci gën a dëgër mooy bi imam malik tan, bor boo xam ne daal ki nga ko séq ak saxal na bor ba te xam na lu mu fayee te rafet na jikko kooku moom booy def inventaire da nga ko da boo nga nga nga calculer xaale ko rek su fekkee ne nag ki ko lebal rafetul jikko wala miim na bor ba wala même saxal na ko waaye mënta fay bàyyil ba jot ca saa yoo ci lu mu yàgg yàgg nga génneel ko wenn yoon asaka rek wax jooju daal moom la Malick tànn de wax jooju daal moo gën a jantal kon nag borongoog e, ay bu gudd la mënta jeex mukk ci benn waxtaan xam naa ci kartanal yàlla boo ma toppee suba ma sof ak yow tamit li aju yaay wal islam isaaq daayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu buñ ci ñëwaatee nag beneen yoon ci kàttanal yàlla dana jeex suratul baqara aaya yi ci nekk yëpp jeex yaayu waay jeex muy fukk ak benn ma door a dugg yow ci Aali Imraan incha allahu suba ci waxtu bi la doon incha allahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa shafiil. bi nga seetaanee vidéo ba pare fekk abonné ko na nga abonné te bës tuuti cloche bi ndax bu ñu dugalee vidéo nga mën di jot notification yi.